mbégte rek ak di sant Serigne Touba euh, ci ni ñu gisee élection yi diko ko déroulé ci biir Touba yépp parce que ñi ngi def le tour des centres mais fépp fuñu dem gis nañ né Sénégal euh, waa Touba génn nañ euh, di voter massivement pour le candidat président Macky Sall vraiment am nañ bëkté lool ci maturité bi nga xamanténi ne la population Touba wané nañ ko ci jamm ak dal dem def sen droit citoyen delluwaat wat i kër ci jamm ak dal. vu le plan d'organisation. sant suñu borom ci plan d'organisation bi parce que vraiment organisation bi jaar na yoon lool. Euh, sécurité bi doy na nit ñi ñu ngi wote ci jàmm ñu ngi delluwaat seen i kër ci jàmm euh, lii mooy démocratie euh, di ñaanal suñ Muntaxa suñ borom may ko wér ak gudd fan ñaan yim def ci élection yi derule ci jàmm ak salaam nit ñi gisagun nañ ko donc ñi ngi xam gëm ne lii mooy continuer fii ba ngoon donc vraiment ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di dee ñaan jigéen ñi ci des di togg añ ak yooyu bu ñu liggéeyee ba noppi ñu génn def seen droit citoyen yi taux xel dal na bu baax a baax a baax liggéey nañ battre nañ campagne mais résultat bi commencé naa feeñ parce que centre de vote bo dem gis na ko jigen ñi ñoo fa ëpp vraiment nit ñi am nañ pas-pasu tay def seen droit citoyen ñi ngi sante bu baax sante euh, ah, sante bu baax xana di leen gëna wax ne ko ni ñu xëyee élection yi nanu ko continuer nanu wote ci jamm ak ci dal euh, delu wat seen i kër déglu résultat yi que le meilleur gagne euh, di ñaanal suñu borom ci barki Serigne Touba suñu candidat gagné président Macky Sall jërëjëf lima ko saté moy sa ni mu déroulé mi ngi ci jàmm ak calme ñu ngi ñaan sun borom tabaaraka wa taala jàmm jooju continuer ñu ngi ñaanit ci sun borom tabaaraka wa taala ñu dugg ci ci kon ñu ci duggee ci bismillahi rahmaani rahim ñu eggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin dama doon xool am na ay quelques manquants ci ay matériel Euh, ñoom lañ doon xool ak euh, représentant yi ñu ko doon jàng euh, fii daal li ma fi gis ne dara manqué wu fi lu ay seesa fi manqué ci loolu it yaakaar naa sous jox na ma kàddoom nee na mi ngi envoyé pour compléter li jot manqué mu sees yooyu ndax nit ñi taxaw di di di toppatoo nit ñi ñuy wate di seese ñooñ dañ dafa laaj ñoo toog ndax fii ba ngoon jot dafa dafa dafa yàgg waaye yaakaar naa yooyu sous-préfet bi nee na mi ngi yónnee lépp pour mu wat. waaw bii mi ngi ci 22 bureau de vote la kon yaakaar naa ni bu am solo la euh, rawatina tamati euh, fi mu nekk mu usine xorom euh, ci it jàpp nañ ne nit ñi danañ wate ci bisimilah rahmaani rahim ko ci alhamdulilah rabbil alamin nii mu am daal ak sécurité bi nga xam ne tamati moom la ministre Aly Ngouille Ndiaye jël ko ba citoyen yi mën ak fortu way way parce que seen xam nga dafa am lu fi amoon ñaanatu yàlla mu am fi kayit euh, fii day dëkku jàmm boo xam ne nii sañ bi sëñ Tuubaa dafa am ci nu ko tëralee ak nu mu ko sañcee kon yu mel noonu tamati ñu ngi ciy remercier ministre bi ki engagement yi mu jëm ci wàllu sécurité bi ba nga xam ne euh, citoyen bi dana mën a ñëw wate ci jàmm dellu ci jàmm ci benn problème di am kooku moom ñu ngi ko sant bu baax ñu ko ci gërëm. ci ne que yow yéen a bokk même branche politique ak nga xam ne dañ bàyyi seen kër di ñëw waaw liñ leen di jox daal mooy ñun ñi nga xam ne kilifa yi la ñoo njëkk di dox ci jàmm ñoo war a njëkk di dox tamati ci fexe ba nit ñi ñëw mobiliser ci jàmm euh, beneen bi ci desit it ñu nii ñu ko derulee nga xam ne ñun ñëpp liñ bëgg mooy lépp dem ci jàmm loolu it maa ngi leen koy gën a di dénk ba jàmm jooju ñu ñu téye ko. ba nga xam ne nit ñi danañ ñëw wote ci jàmm rawatina nag euh, citoyen bi nga xam ne dafa génne kërëm ñëw yor wenn kartam pour kooku jàmm lay wër ah kooku it ñi ngi ñaan yàlla moom it mu ñëw ci jàmm dellu ci jàmm. ba nga xam ne euh, liñ bëgg ci mbir mi lépp ki nga xam ne tamati moo yore mbirum kaaraange gi muy Aly Ngouille Ndiaye lañ ci bëgg ci wàllu sécurité tamati ak wàllu jàmm loolu ñu doxal ko ndax président man ñun moom min àndal loolu lay wër loolu lay wut nee na mbir mi nañ ko def ci jàmm mu jeex ci jàmm lépp jàll ci jàmm Sénégal del siwaat ñëpp nekkaat ci jàmm ah ndax fii ñu toll bu subaa bu subaa ñëpp dañuy joxante waat ay loxo kon jàpp nañ ne Euh, mbir la moo xam ne nii euh, nañ ci dugg ci bisimilah rahmaan dem eggale ko ci alhamdulilah rabil alamin waaw li mu fi constat daal mooy am na tuut ay manquement mais wat mi ngi jaar yoon ginnaaw bu ñu sant yàlla bu baax a baax di gërëm Cheikh Mouhamadou taxa ci woote bi nga xamante ni woote na ko demb ci dal ak jàmm ñun bi ñu xëyee tamit bi ñu wootee ba noppi loolu la ñu wootee ndax Touba li mu miritoo mooy ñu wot si jàmm wat si dal. bu 18 rek kep ko xam population Touba tan ñu xam ne loolu la yalla dogal en tout cas motax bi ñu xeye ñu dem wote ji bureau numéro 51 arrondissement Ndam fa la wote mbolo mi genn wax deug yalla sama xal dal na biñu wote tan ba nopi xamna ni tay ji fekk nañu dañu fi fii bi sax ñun gañé nañ ba nopi kon loolu mom lay laase di wax ñepp ni nañu and ak dal genn dem wot ci jamm buñ fu wote ba nopi ñu delu seen kër ba pare nag mu waa lancé ordre aussi tamit sécurité bi pour que ñu den yor sécurisation de wat bi ndax kat comme ñoom ñeneen ñi ñi ngi wax ni dañoo bëgg a yàq bureau de wat yi à 18 heures ndax xam na ni perte nan démb bi defee seen réunion wax nañu loolu ñun bëgguñu leen loo xam ne lu yàqu la ndax xam na ne gagné nañu kon loolu li nga xam moo si des mooy ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo yore sécurité bi ñu veillé si loolu wax naa ko seen kilifa yi ñu ngi continuer def ay tournée am na ay manquement yoo xamante ne représentant bureau de wàll yi ak président yi sax amuñu ay sièges yu ñu toog ba man mi maa mujj luy ay sièges wutal leen ndox yu naan kon loolu euh, incha allah pour loolu liggéey bi mën a jaar yoon. fii nga xam ne la nag euh, li fi amoon législative yi dana fi amaat ndax yaakaar naa ni fii moom siège la boo xamante ni fi laa dëkk fi laa màggo fi laa yoro te li mu fi def. jàpp naa ne bis bu résultat gisee génne daan xam ni def naa ko non bu baax a baax a baax bu dee fee nga xam fa laa woote am na kanda boo xam maa ngi moom ñoo bokk wote ndoo mais moom naa ko gagné foofu incha allah kon damay wan ne moo am solo sant population bu Touba bi ndax ñoom ñëpp dañoo maase jàpp président Idriss Seck jàppale ko aussi tamit taxawu ko ànd ak ñun xeex boobu noonu lii nag mooy dernier jour bi nga xamante ne xeex bu tey la ko firndeel mooy xam naa ni daan am victoire boo xamante annuwul Touba Macky Sall dana xam ni Touba du ay jaam Touba ay doomu aadama lan ay golan taalibi Sëriñ Touba bañ na ko ba tey suba dafa indi armée bi fii indi ay chars de combat pour xupp nit ñu bañ a wate ji mais ñii Sëriñ Touba lan gëm te ay gaynde lañu gaynde yoo xamante Macky Sall moo ñu du moon détourné ça vous remercie euh, maa ngi leen di leen gërëm di leen sant bu baax li tax ma ñëw tey Darou Minam 2 dama nekk mandataire nekk bokk ci parti politique yoon may ma ma wër di xool centre de vote yi ni muy doxee ci laay wër baag si Daaru Minam de di xool lieu de vote yi yéen ma dégg léegi ma discuter ak xale yi ci personne troisième âge ak les femmes enceintes ak ñu yor doom loolu dañ leen leen loi moo leen ko may bu ñu ñëwee waruñu rang dañu war a dugg xëy na ñoom xamuñu li xew xëy na tamit nekk ci biir de vote yi xamuñu la xew loolu tamit suñu rol la pour ñu leeral leen ko mais pour le moment bureau de vote léegi. maay lima ma remarque bi ma njëkk a def mooy tey Touba gi yëpp dañoo génn surtout boo demee arrondissement Ndam Touba gi yëpp ñoom ñoo génn ñoo génn mais li gën a yéeme mooy dañ ko def ci discipline ak yar ak teggin dafa mel ni appelu sëñ xalif général des murit sëñ euh, Mountakha Bachir dégg nañ ko ak appelu candidat yi en tout cas am nañ espoir que ni buñ lii continuer ba ngoon coow du jib li ñuy wax ku voté ku ne na nga ñibbi sa kër toog déglu sa résultat ku nekk sañ nga. xol ki la neex nga voter ko mais lepp lañ ko tek ci kaw yar ak ci kaw tegg surtout Touba gi ñu nekk lolu mom moy remarque bi ma njëkk def ni euh, élection yi mi ngi dérouler dans de très bonnes conditions defe par rapport ak législative fi jall gis nañ élection yi ni mu déroulé sante yalla bu baax tay tamit gëna sante tamit euh, votants yi électeurs yi xamni maturité bi ñi am ba ñi voter dans le calme lo sante yalla rek la. vu le plan sécuritaire. sécurité bi macha allah man wax naa ko sank préfet bo fa débé dafa dafa melni agent bu nek bureau de vote bu amna ben agent bu fa taxaw entourage yi fii xëy amu ko grille de protection yi gis nga ni mu démé en tout cas yaakaar mën na am ci dal bi dal bi seigne Moustapha Bachir don voté don wax dafa melni ni yi déglu nañ ko ndax ñu ay talib rek lañ quel que soit candidat bi nga faral na nga def li la wara def nga dem ñibbi sa kër nga tok lepp ci jamm ak salam bu tok sa kër dem déglu ji résultat yi man ma ngi bay sama wa kër ñu nga tok ay añ

def na defar na bilan bu jar ñu votel ko mais ñun tam en tant que responsable politique euh, defe naa ni dafay jàll au premier tour te dafay jàll dès le premier tour incha allah. mooy li ma wax léegi rek euh, di leen encouragé di leen sant bu baax di leen félicité parce que élection bu commencé huit heures ba heure bi te déggoo benn coow sant yàlla rek la sant suñu tubaab bu baax bi ñu yaakaar kon nag li may leen di gën a ñaaxaar rek mooy discipline bi ñu commencé nañ ko continuer ku voté na nga sa kër dem toog rajo yaa ngi fi résultat Nous ñu nekk muy Minam 1 ak 2 euh, gis nañ ne vote bi mi ngi déroulé normalement amul n'y problème euh, li ñu problème. rek que ni vote bi di le di demee nii mu continuer ko non ba résultat bi di génn mais constaté nañ ci yeneen centre de vote yi ñu jógee parce que dañ def tour des centres de vote amna centre de vote yi ñu fa gis yo xamante amna ay bulletins yu commencé manqué surtout daru marnan arrondissement constaté nañ fa ne bulletins yi la fa des bariwul président yi fa nekk aussi bi ñu leen interpellé ñi ngi xaar lañ wax ba léegi donc foofu problème la boo xamante ne très rapidement war nañ ko régler ñu ñuy signalé sànq que ne aussi bureau de vote centre de vote Kër Ñang ak centre de vote Madiana ñi ngi fay gis ay assas de conscience ba tudd nañ ñu ay tour mais ci loolu la ñuy dox nii instant bi pour dem vérifier ji loolu pour xam naka lañ ciy taxawee waaw xel daal na bu baakha a baax parce que euh, liñu ñu constaté ak euh, li nit ñi di wax moy résultat bi xam bu génne dinañ am une victoire écrasante. Ah. centre bi tay bok centre yi nga xam ne période euh, législative ah. dafa am ay problème ñu gis forte présence des forces de l'ordre. waaw loolu lañuy ñaan aussi parce que ñun dañ bëgg vote bi ñu sécuriser ko. instant bi liñ gis ak dispositif sécuritaire biñ fi gis gëm nañ ne bu vote bi continuer ni mu continuer duñ fi duñ fi am problème te loolu lañuy ñuy souhaiter. tant que responsable politique waaw ban message booy jox ñi nga xam dañu génn seen i kër di ñëw di def waaw acte de de maanaam message booy lancer la population li ñu leen di wax mooy nañ génn dem voté ji ñu génn dem voté ji parce que loolu devoir la nañ voté ji ku voté ba pare nga dem toog sa kër résultat yi bu génnee ñu bañ a nekk di def ay manifestation ci biir dëkk bi ndax loolu la sëñ bi santaane Mouhamadou Lamine Bara Lo euh, tey ci centre de vote bu municipal Darou Khoudoss sur le plan d' organisation ana loo ci wax. Eh, déjà eh, damay remarqué ne am na ay quoi yu bëri quoi gi mooy lan c'est-à-dire ñu bëri di ñoo yor seen i carte seen numéro bureau de vote bu ñu ñëwee ba ci seen bureau rang ba sonn dem ñu leen nekkoon fi am na ñaari jigéen yu ma si jël yoo xam ne kenn ki Touba la nekk dañ ko déplacé mu dem Pekes ki sees Darou Khoudoss dëkk inscrire Darou Khoudoss résidence Darou Khoudoss ñu yóbbu ko Guinguinéo donc pour nous, pour ñun sabotage la parce que Touba tamit ñepp xam nañ tanal bi donc ils ont selon moi essayé de saboter euh, pour faire baisser le taux de participation mais nous ñu tous parce que gis nañ ni Touba nañ en masse voilà donc aujourd'hui on est en train de constater on est en train de prendre note tout en essayant de conserver le vote fexe ba nit ñu lépp ci nit ñu voté fii ak ngoon yéen déjà rek ñoree la après incha rabbi. sur le taux de participation ndax man ñu ci dikk. waaw ba fi ñu fi ñu tollagul ni japp naa ne rythme biñu démé baxna donc bu ñu maintenir rythme bi fii ak début après midi bi japp naa taux de participation bi dina ëpp législative bi sur le plan sécuritaire. sur le plan sécuritaire waaw y un bon dispositif sauf que nak